division. Et après avoir monté en deuxième division, la réforme du football nous relègue en National 3. Rappelons aussi que l'ASC a fait des parcours honorables au niveau de la Coupe du Sénégal, en sortant beaucoup de grands clubs tels que la Jaraaf, la Jardin d'Antan, Strekunda et d'autres clubs, j'en passe. Nous disposons dans notre commune ici, comme vous le constatez, un complexe sportif où l'aire de jeu et homologué par la fédération. C'est ici où nous jouons nos matchs depuis l'année dernière. Le problème que nous rencontrons ici, c'est la stabilisation de l'aire de jeu. Vous pouvez constater ça avec nous-mêmes. y a beaucoup de sable, y a certaines connexions. Nous disposons aussi d'un effectif varié dans toutes les catégories. Et notre objectif cette saison et la montée en National 2 et amener l'équipe junior à aller plus loin possible au niveau de la Coupe du Sénégal. la est aussi confrontée à un problème de moyens financiers, car elle ne reçoit qu'une subvention de la commune nord de 500 000 avec beaucoup de retard. Et ça, peut-être qu'on va vous expliquer depuis près de 7 ans, l'ASC n'a reçu qu'une seule subvention de 500 000. Pour le problème de transfert des jours, c'est dans ce niveau que l'équipe a subi beaucoup d'injustices. Nous vous rappelons d'abord le transfert de Djeila Nifal qui nous a valu une suspension de la fédération car on avait saisi la justice qui se déclare incompétente alors que tout le monde sait que le jour qui n'a pas suivi n'a pas n'a pas suivi les procédures normales a été transféré injustement au Jaraaf par le Ndiambour et enfin le Jaraaf l'a transféré à Auxerre sans qu'aucun centime ne rentre dans les caisses de, la l'AS Mbaxane. C'est l'occasion aussi de rappeler à la fédération de diligenter dossier qui était déposé au niveau de la Chambre de résolution des conflits qui vient d'être installée officiellement. Je pense que c'est le premier dossier que cette Chambre doit traiter. C'est l'occasion aussi de rappeler à Génération Foot et à Marie Touré, son président, de régler sans délai le transfert de mon Abibou Diallo et que le soutien de ce dernier que, ce, que le joueur a apporté, effectivement le joueur a apporté un soutien au ne saurait clore ce dossier. Nous vous rappelons, avant le transfert, Marie s'est rapproché de nous. Il avait, au niveau de la délégation, j'étais le président à l'époque, le président actuel, que le président de la commission sportive était là-bas, et d'autres membres du groupe. Et c'est Madi même qui, a, nous avait saisis pour nous parler qu'il ne voulait pas que l'ASC vive la même injustice qu'on a vécue avec, avec, avec C'est après que nous avons su que c'est lui-même qui était le bras armé de Jaraaf c'est lui-même qui a transféré Djeylani pour le compte Jaraaf nous avons aussi beaucoup d'autres joueurs et que aussi au niveau de l'ASC n'ont pas vraiment eu la chance de bénéficier de ces transferts parce que l'ASC forme vraiment des des des, des gosses talentueux il y a des techniciens très bien le parcours de certains joueurs il y a beaucoup d'autres joueurs qui sont passés ici tels que Issa Ndoye tels que Baye Ibrahima mais l'ASC n'a pas eu vraiment la chance de bénéficier vraiment de ces, de ces, de ces zéniths de transfert. Et que tout le monde sait que même, si l'ASC produit des bons jours, ce sont ces productions, ce sont ces produits qui lui permettent vraiment de pouvoir de, avoir des moyens additionnels. Parce le transfert des jours, avec la réglementation, l'ASC doit avoir au minimum des indemnités de, de, de, formation. Et aussi, même ces jours aussi, état des produits aussi de l'ASC, ils pouvaient vraiment essayer de rendre l'ascenseur aux jeunes parce qu'ils ont été encadrés et que si on dispose aussi de moyens additionnels, ces jeunes-là seront mis aussi dans d'excellentes dans conditions et aussi ils pourront, ils pourront s'y partir. Et c'est seulement quand même dans ce cas que nous invitons vraiment euh, les anciens à se rapprocher de l'équipe et à soutenir quand même leurs frères, même le club. Et aussi, nous appel aux populations Parce que d'abord, l'ASC, c'est le cadre pour les enfants. Et que tous les jeunes, regardez les équipes naïtanes qui sont là. Elles sont nombreuses. C'est nos enfants, nos neveux qui jouent là Et que l'ASC, comme leur permettre, même les dirigeants de ces ASC, au niveau quand même de cet ASC, s'ils s'approprient de l'ASC, ils peuvent même perfectionner même de formation. Parce qu'il y, a ici de grands techniciens qui sont là que ce soit sur le plan au niveau de l'encadrement, aux populations de Thiès Nord de s'approprier de l'ASC. Hein, pour que fassent leur ASC la, la leur. Hein. Ainsi de suite, ça leur permettra aussi d'encadrer les jeunes et tout le monde, nous avons pour tout le monde, que ce soit les dirigeants d'ASC, les joueurs, et que si les techniciens, les, les, les techniciens de ces ASC, s'ils de l'ASC, de l'ASC Mbakhan, l'ASC leur permettra vraiment d'un centre de formation pour, le, pour, le, pour les au niveau de la formation, de l'encadrement, au niveau de la, la, formation des jeunes. Et ça permettra aussi à l'ASC aussi d'être plus forte. Parce qu'une fois soudée autour d'un club, et que vraiment, beaucoup de problèmes avec les techniciens qui sont là, hein, avec les joueurs qui sont là, et que la zone nord pourrait disposer vraiment d'un club fort qui pourrait aider vraiment tous les jeunes qui aspirent, qui, qui, qui, qui optent pour le football au niveau de la zone nord. l'occasion vraiment de remercier des anciens qui étaient là et qui sont venus cette année reprendre l'équipe, que soit Bekaï, que soit Raoul, Quelqu'un comme Bekaï, c'est ici il a son initiateur. L'ASC l'a eu peur de vue, maintenant il a pris conscience, maintenant il revient au de a d'autres la zone qui ont de ces avantages, mais que la leur. Ce n'est de George, ni de Da, et suite, ni de Zal. C'est l'ASC de la zone nord, ni de Ousmane Diouf. Que les gens viennent s'approprier de l'ASC. Ils y Nous, nous étions là, nous avons fait notre temps, mais nous, ce que nous pouvons, c'est venir encore être avec eux, les appuyer. Mais c'est à eux de prendre l'ASC en main, de prendre les des jeunes en main, pour essayer vraiment de bâtir un club fort ici au niveau de la zone. Et que si tout le monde s'y met, vraiment, on va avoir une très bonne ASC avec les nouvelles ambitions que les, que, sont fixées, avec la nouvelle organisation qui sont fixées, parce de presse, ça permet de faire connaître aux gens quand même que l'ASC est en train virage est en train vraiment de faire une gestion envers, d'acheter les populations, de dire ce que nous avons, ce que nous manquons, amener de la contribution de tout un chacun pour qu'on puisse bâtir un, un, un, club fort. Avec ce club fort, ça nous permettra aussi de mieux encadrer les jeunes, de mieux les conseiller, de mieux voir les retombées au niveau de, au niveau de la zone. Parce que quand on donne de l'argent maintenant à l'ASM Bahan, mais c est, c est, cet argent est destiné à quoi à entraîner les joueurs, les mettre dans de bonnes conditions, à avoir les équipements didactiques pour faire le travail, à disposer de bons équipements, à pouvoir voyager, à pouvoir être performant. Et que si les jeunes font des résultats, mais ces résultats-là vont d'abord pour eux-mêmes, au niveau des jeunes. Et que ce cadre ici, c'est les jeunes eux-mêmes. Ils sont avec leurs frères, leurs pères, leurs oncles. Et je pense que c'est là où devons continuer à sensibiliser à sensibiliser tout le monde pour qu'il s'approprie de l'ASC. Nous avons l'impression que votre ASC a fait euh, objet d'injustice deux fois par rapport aux retombées qui tombent au niveau des, des transferts. Est-ce oui. que vous pouvez revenir sur ça ça, ça, ouais, ça, ça, ça, on peut y revenir. Parce que pour le cas de Guilani, parce que comme nous le constatons, il y a des textes qui régissent les formations, qui, qui régissent le, les procédures pour les transferts de joueurs. Parce que les équipes, parce, parce que les clubs, parce que les clubs sont, sont parce que les joueurs sont qualifiés dans des clubs en disposant des licences en bonne et due forme. Maintenant, pour qu'il y ait un transfert, il y a, des procédures, il une procédure normale. Il y a déjà dans le protocole, il y a l'intention du jeu qui, doit quitter. Il y a ce protocole qu'on doit signer avec, les jeux, avec, avec l'équipe. Hein? Il y a des textes qui régissent tout ça. Maintenant, ici, ce que nous avons constaté avec Deilani, c'est un joueur qui était avec nous. On a su un bon jour que le Djaraf, sans que le, il y au niveau du Djambour, que le Djambour a soit contactée ni quoi C'est au niveau de la presse que nous l'avons appris. nous avons saisi ce que Nous avons fait ce que en ayant d'abord, en interpellant ces, ces, ces, clubs avec des correspondances ou les dates euh, ou les, correspondances si ma mémoire est bonne, c'était depuis le 3 octobre Il y a des, des, des décharges au niveau du président de la commission, du de l'actuel Bahan, qui a tous ces documents. Et après ça, nous avons demandé au niveau nous avons constaté que la, que la fédération n'a pas réagi. Et nous avons décidé, après de la fédération, la fédération n'a pas réagi. La fédération de football n'avait pas réagi. Ce que nous avons fait, c'est porter le dossier au niveau de la justice. Nous avons porté plainte à la, la, pour Ndambour et à la fédération pour complicité. Et dans ce cas, la fédération nous a même suspendus. A suspendu l'ASC pour nous dire que nous n'avions pas le droit de protester en justice. Parce que nous devions régler, nous contenter de, l'aspect sportif tout simplement. Et qu'est-ce qui s'est passé Parce que la fédération avait la commission de règlement des conflits qui était là. malheureusement, à l'époque, cette commission n'avait pas de président, il personne. Il y qui est professeur de droit à l'université, qui était pressenti pour diriger cette, cette, commission. Mais cette commission n'a jamais fonctionné. C'est cette commission cause pour laquelle nous avons demandé à la fédération, comme nous l'avons saisi, c'était le premier dossier qu'on avait donné à la fédération pour trancher ce dossier, c'est pourquoi nous lui rappelons, nous lui rappelons de trancher ce dossier. Parce qu'actuellement, il y a une commission qui est bien mise en place avec un magistrat, M. Badakaoula, qui est nommé à la tête, qui était au niveau de, de la TAS, qui est revenu au niveau, de la fédération. Mais donc, la fédération doit maintenant traiter ce dossier parce que c'était le premier parce que c'est un problème de transfert. Nous avons aussi d'autres procédures pour aller peut-être au niveau de la tasse et autres. Nous avons pris des avocats actuellement. actuellement Vous avez pris des mesures euh, pour euh, euh, Non, c'est là où je veux en venir. C'est là, là, où je veux en venir. Parce qu'avec ce que nous avons rencontré avec Géla, nous ne voulons pas le rencontrer avec, avec, avec, avec un autre jour. Présentement, il y a un jour que nous avons transféré à Génération Foot, Diallo, qui est actuellement à Metz, que vous suivez tous actuellement. Les dirigeants à l'époque, surtout M. Mahdi, étaient venus, nous confiance en lui vraiment pour qu'on essaie de dossier. Le jour après avoir été transféré, lui-même, il, nous a donné un appui pour dire que vraiment, merci, donc j'étais, ils nous reconnaissent au moins en donnant quelque chose. Mais il y a des procédures normales. Parce qu'avec le transfert d'un jour, il y a des dizaines de transferts, il y a tout, une procédure par rapport à ça. pour leur demander, parce que nous ne voulons pas amener le dossier au niveau de la justice. Nous voulons quand même continuer, les rappeler pour qu'ils essaient de respecter leur engagement. Parce que ces équipes-là ne vivent que par rapport au transfert de jours. Parce que leurs produits, les jours sont leurs produits. Et c'est là où trouver des moyens. Mais actuellement, au niveau des poches, au niveau des appuis, des missels, mais ça ne peut pas rendre un club vivre avec, des, avec une certaine autonomie. Mais, mais, si vous produisez de beaux jours, vous a des moyens de travail et Mettre les conditions, les de bonnes conditions, mettre les jeunes et produire d'autres produits. Maintenant, cause pour laquelle nous sommes là, ah vraiment, nous lançons aussi un appel à la fédération. Parce que la fédération, c'est qui est garant des textes, hein, au moins qu'il essaie de faciliter certaines choses. Hein, euh, euh, rappeler certains Mais les clubs professionnels prennent les clubs, les jours des clubs amateurs, sans aucune indemnisation, sans aucun appui. Et ça, c'est la fédération qui gère notre football, qui doit être, être le gendarme, même le policier, même le, du football, pour, essayer, pour obliger ces équipes professionnelles à respecter les engagements envers les clubs pro. Mais sinon, on risque de tuer les clubs amateurs. C'est ça du problème. temps yëpp na sax ñu ngi courir derrière le maire pour ñu stabiliser ñu aire de bi rek li ñuy demande sax bariwul mais deux ans yoo xam ni problème yooyu la ñu am pour ñu stabiliser ñu terrain bi parce que terrain bi comme ni ko président Badiane waxee ah, terrain bi homologué nañ ko depuis presque vingt ans bi ñu ko homologué ba léegi daaw fi la ñu joué tous nos matchs de championnat te suñu terrain bi dara manqué wu fi presque mën naa ni li fi nekk amul fenn ci Thiès. vestiaire yaa ngi fii salle de conférence yaa ngi fii salle de presse yi cinéma yi ay cinéma sax am na fi vraiment amul dara loo xam ne manqué na loo xam ni manqué na ci ci terrain bi lu dul ñu stabiliser ñu aire bi rek pour euh, diisaay bi xaw a wàññeeku loolu mooy problème mu <laughs> terrain bi pour problème yi jànkoonteel nag mooy euh, problème yu sérieux la que boo xoolee. Euh, ci affaire joueur yi ñëpp war nañu xam ni lu ñu gàtt gàtt xel war nañu xam ni joueur boo jógee ci équipe di dem fenn am na lu la war a lié ak euh, équipe ba nga jógee fu ngay dem war ngeen am protocole tant que protocole amu fa euh, mënoo qualifier fenn pour ñaari joueurs yi tax sax ñu gën a woote tey muy le cas de Djeylani nga xam ne bi ñu demee njàmbur defarul protocole defuñu dara ñu dem song leen. fédération ni chambre bi réglé litige nañu rabattre foofu kii bi sax papier bi ñu jox mi ngi fii si ak man ni nañu rabattre ci chambre bi réglé litige ñu rabattre fa seeti le professeur Sakho keroog secrétaire général bi Baba Seck moo dem fekk ko université waxtaan ak moom bi ñu ñëwee fédération ñu ni professeur Sakho nee na conditions yi ñu ko teg baaxul dafa des moo tax chambre bi dawul sept ans ngi chambre boobu bi réglé litige amul mi ngi soog ubbeeku moo tax ñu relancer waat dossier boobu tribunal boo demee toujours ñoom am na foo xam fa la ñuy mën a yem am na loo xam ni boo duñ ci mën a xuus ndax affaire football presque bu ñu sañoon waa football rek di ko régler sept ans nga toog ko day mel ni rek dëkk boo xam ni amul tribunal anarchie ba day bari kenn lu àtte moo tax conflit yi fi am yëpp litige yi fi am yëpp presque kenn àtte wu ci benn loolu mooy pour le cas de Abdou Khadre bon pour kaaw Habib Diallo fii Mbaxaan moo ko révélé effectivement ni ko waxee jaar na CNEPS mais Mbaxaan moo réglé presque formation dëgg-dëgg Mbaxaan la ko defee. championnat bi mu mujjee football mooy bi Dakar Sacré-Cœur yéegee en Ligue 2 keroog euh, Raoul euh, Raoul bi bi nekk Best FM seen confrère bi rawul moo doon entraîneur équipe bi d'ailleurs Raoul moo ko classé contre Asfa. ci la marqué but mais championnat match yooyu yëpp football na ko tous les matchs de championnat seen confrère rawul moo doon coach équipe bi vraiment li ñu waroon def yëpp <coughs> def nañ ko Madi bi mu soxlaa joueur bi man la woo ma woo président Badiane ñu dem bureau toog mu ne ma dañu soxla joueur bi man ko amul problème léegi ñun am na foo xam fa lañ mën a yem comme yéen nag dañuy bu ñu formé ba egg fii ngeen jël. ñu bàyyi ko yéen ngeen eggale li ci des loolu amul problème ñun réussite booy yi rek lañ bëgg maa di xamal ni ñu <clears throat> li jaraaf injustice bi jaraaf def si Jeylaani lay bañ bañ a def moo tax ma woo la pour wax ak yéen ñu toog waxtaan ba tënk mu mu ni une fois ma jaay euh, Habib seen problème yëpp danaa ko régler du am benn problème ma ne ko d'accord maa di mën naa la ni sax campagne am man maa ko yoroon bi ñu xëccoo fédération je suis le seul président de club bu àndoon nag Madi Touré Kaolack partout maay dem maa ko indi Thiès euh, voix yu bëri yu mu am presque man maa ko lijjanti ji waaw effectivement man euh, yaakaar maa moon ci Madi masuma ko am ci benn dirigeant football Sénégal wax naa ko devant tout le monde man dama ko wóolu ba nga xam ne su ma waxee sax laajul bind dama ko wóolu ñu ànd campagne bi keroog euh, bi ñu ne veyu veyu élection yi hôtel Almadi quatre heures du matin la ma maa di fekk fi délégation Thiès nekk y avait tous les présidents de club de Thiès nekk y compris le président de la ligue kenn ñeemu fo ni man maa ko fa indi quatre heures du matin fekk Augustin jógee fa ak ñëpp ànd ak moom partout jour élection yi ñoo nekk partout moo tax doo mën a gëm yenn yi bokk gaa yi defee waaw effectivement waaw seulement xam nga euh, problème bi yëpp mooy maadi yi bu ñu la joxee joueur am na loo xam ni moral sax ak éthique vraiment ngor sax mayoo ko bu ñu la joxee joueur defar ko jox la mu ñëw ci yow un nga jaay ko war ngaa dem seeti équipe boobu woo leen kat ni leen nangam ak nangam jàpp leen ci lii nangam ak nangam ak nangam. ce qui ànd bi gën a neex gën a mën a continuer pour wan la protocole joueur yi ma doon jëkk a wax <coughs> gis nga joueur bi kii ñu ngi koy wax Mathieu Gomez njàmbur la nekkoon bi ko mbaaxaan soxla bi ko mbaaxaan soxlaa mbaaxaan dafa defar protocole mu ngi nii mën ngeen ko lire mën ngeen ko lire fiir mën gis nga ko Mathieu Gomez bi ko mbaaxaan soxlaa mbaaxaan dañoo defar protocole pour ñoom ñu gis nga ñu ñu defal protocole d'accord prêt président Ndiambour signé ko bon xam nga li yàlla di defar rek bi ñu soxlaa benn joueur jaraaf muy Mokhtar Gueye dañoo dem defi protocole ak waa jaraaf la président Wagane signé ko protocole baa ngi nii. protocole baa ngi nii ñu nag jaraaf le cas de Dieylaani amul protocole benn protocole amu ci kon joueur boobu mënul qualifier foofu joueur boo ko soxlaa dafa am looy bind ñu ngeen def protocole ñun bi ñu ne soxlaa seen joueur li leen li ak ñoom bon beneen bi non du question nax xam nga du question nax am na loo xam ni chambre bii réglé litige bu amoon nax boobu du feeñ parce que bu ñu la naxee ci dara nga dem fa nga war a dem ñu chambre bii réglé litige yi temps yi taxawul kooku mu ngi mel nga dem tribunal ñu la tribunal liggéeyul tribunal kat dañoo taxaw fi mu nekk doo am looy def waaw doo am leneen looy def bon beneen bi euh, pour won la affaire protocole ma joxaat la beneen exemple exemple lu Yaali Fall Guène Yaali Fall Guène bi ne woon bi ne woon gore dafa jóge raay sans protocole dem Gorée fubal fa fubal na fa trois ans àddina di dox ba raay di daje ak gore coupe du Sénégal Yaali Fall génn ñëw bi mu ñëwee raay porte réserve dañoo génn joueur bi pour war la ni kon qualifié wul ndax amuloon protocole et c' est l' équipe du président Senghor président fédération mooy président US Gorée waaw non bi mu waaw non bi euh, bi Jeylaani jógee Jaraaf bi bi mu jógee Mbaxaan dem Njàmbur dafa signer licence sans dara xam nga foo qualifié wul foo dem signer licence xam dañu lay signer mais waa Njàmbur bi ñu xamee ni jaar na Mbaxaan téléphone nañ la président Badiane ni ko dinañ ñëw pour defar protocole ak yéen mais ñëwuñu ba tey. ñu pare man bi mu jógee jàmbur dem jaraaf ma alerté ji jaraaf ndoofeen këram laa dem fekk ko këram ma ne ko jour bi njàmbur moomu ko c'est un di de jaraaf euh, c'est un jour de mbaxal mu ni noo njàmbur la masa nekk na ma explique ko nanguwul dégg ñu bàyyi bi mu fa signé li ñu waroon def ñun def nañ ko li ñu waroon def mooy saisir la chambre bi nga xam ni mooy régler litige yi bi ñu demee ñun chambre boobu actuellement nii doxul loolu moo indi ce problème la tey nag fi mu nekk xam nga comme chambre bi mi ngi soog a am du ñu def lu relancer le dossier la parce que chambre bi mi ngi soog am te nag ay magistrats chevronnés ñoo fa nekk te ñëpp xam nañ leen magistrats sénégalais amuñu caaxaan ay nit lañ loo xam ni xamuñu lu dul yoon te comme chambre bi ubbeeku na nag ci la ñuy mu ma eggaleel la kaaw Yaali Fall Guène bi Gorée ñëwee football ak Rail Coupe du Sénégal à Thiès Rail daf porté réserve ñu génn ko parce que xam nañ amul protocole. ñu dem Gorée dóor raay Gorée semaine bi ci des di daje ak yëgoo ñu aligné waat Yaali Fall génn waaye yëgoo yëg ni contrat yi dañ ko génne yëgoo porte réserve ñu génne ko gore dooraat yëgoo dem final bi mu demee final gis nga li ñu def ni Yaali Fall génn forfait pour la finale parce que xam nañu administrativement qualifié wu ngi nii effectivement final boobu fubalul ca déwén sa la waa gore ñëw cees seeti waa raay pour ñu defar un protocole ñu defar un protocole wax a wax kii jëflante la ñuy jëflante joueur bi mën a qualifier gore lu amul protocole mënu la valable lu amul protocole sax dama naan la fraude la fraude bu wér a wér a wér waaw nii la problème yooyu demee raay xamoon nañ ni booy baa ngi fubal ci équipe bi mais raay sa les intéressait pas parce que dajewuñu seen intérêt amul ci nekkagu ci woon suñ ko jaayoon raay jóg ba ñu dajee raay dañu jóg ñu ngi nii Yaali Fall génn forfait pour la finale problème bi problème mu transfert yi noonu la demee ki ma cas bi ma gën a metti c'est le cas Madi Touré man Thiès yëpp lañ ma bàkke woon Madi Touré dem naa ba fu ma dem ñu ne génération nga bokk tellement li ñu lii woon dafa bari fédération li tax ma àndoon moom daf ma nii euh, li ñu leen def ci Jeylaani laa mënula d'accord bu ma gañee fédération football du daw Sénégal tant que réglé wuñ lëkkaa jiy laaj lii laa signantewoo ak Madi Touré mu ànd ak moom effectivement fu ñu mas dem campagne it slogan boobu lay dugal waaw ñu ànd dox ci loolu dox ci loolu ba lii am ñu commencé yenn yi waaw problème yi nii nii la demee l'équipe nag a trop souffert bon joueur yi te fii c'est une équipe boo xam dafa am histoire parce que équipe la boo xam ni bon daaneel na fi équipe ba tey ETICS bi mu nekkee vice champion du Sénégal Mboro lañ fekk éliminé ko Jeanne bi demoon finale Coupe d'Afrique fii lañ ko éliminé Jaraaf bi jëloon euh, championnat du Sénégal fii lañ ko éliminé et puis seen équipe type Kounda yeneen équipe en pagaille yéeg def lépp kër bi ñu éliminé Jaraaf seen confrère bi moo doon entraîneur Raoul un jeune entraîneur ñu woolu ko jox ko équipe bi keroog ay Habib Habib Diallo gars yëpp moo leen dugal année boobu Kër Gosse vraiment lii daal mooy le gros du problème oui waaw. non xam nga ay ay problème de transport di nga gis joueur bu jaar ñetti équipe par exemple da ngay gis le cas Djilabodji